ok la mi fa dama leen di fàttali aussi di leen yëgal ñu leen wax ne leen nag le 9 incha allah le 9 bii nii dañoo war a distribuer ay ndogu quoi dañoo war a joxe ay ndogu waaw ba tax na koo xam ne bëgg nga cee jàpp nga yàgg bëgg dimbale Zal bon numéro téléphone bii ci suuf am na wéef quoi nga jàpp ci nga participer incha allah le euh, dañoo war a joxe ndogu def ay don def lépp quoi bon gars yi dama ne woon dama leen koy yëgal ku nekk am na ay nit te man yéenee samay nit ba tax na kon ma leen koy yëgal wax le 9 incha allah képp koo xam ne bëgg nga cee jàpp numéro comprend nga waaw sa teguñ kenn nag lu mu mën ku ci mën a jàpp rek nga jàpp ci quoi moom la ñuy wax quoi kon boog gars yi ñu ngi leen xaar ngeen jàpp ci quoi kon boog numéro téléphone bi moo nekk nii te invité nañ ñëpp incha allah le neuf lay doon incha allah kon boog gars yi